doy na doy na merci jërëjëf jërëjëf si seen way yi ma naqari sama xol bi kenn du ko tere bañ a wax parce que xam nga lu tax du ko ñàkk bañ a wax li am moom moo am ba leer te ñu bari ñu ngi koy naqarlu équipe boo xam ni équipe boo xam ni ñuul kukku

mu jël ay nit ñu ñuul kukku toogloo ay nit ñu weex France gagné coupe du monde ñu ne France moo gagné déedéet France gagné ñu ñuul ñoo gagné ñu juddoo France ñoo gagné parce que tubaab tubaab dëgg ci ndey ak ci bay boo ko dompetee day xonku waaye ku ñuul nga koy dompet muy gën a ñuul kooku du tubaab ci ndey du tubaab ci bay ñoom ñooñu ñu Mbappé. papam du tubaab yaayam nit ku ñuul la baayam nit ku ñuul la. Ngolo Kanté. baayam ku ñuul la maamam ku ñuul la nijaayam ku ñuul kukku la. ana tubaab fii. ñu bëgg ñu fàtte bëgg ñu xëy na la France a gagné. déedéet dañ naan les Français d'origine africaine ont gagné. Ah sauf ba Bagdadi. soo xamee ni ma leen ni ngeen may def sama xol bi ni ma leen bañee wax waxu France sama xol baa ngi toj wax soof ba bëgg a dee ñàkk yar iñaan saxoox garuwàll yi may garuwàll yëpp boo leen toogee ba xaaju ngeen xalaat li meen wax ne loolu mooy dëgg ndax xam ngeen ni tubaab ci ndey ak tubaab ci baay bokkul ak tubaab ci bàppa bu ñuul ak yaay bu ñuul dëgg la wara du dëgg dëgg neexul waaye nañ ko waxte di bu fekkee ne nag loolu moo tax ñu yaakaar ne man dama soxo man équipe bi lu mu gagné neex na ma di ah. li ma naqari xam nga qu'est-ce qu'il mooy lu ñu jël coupe bi di wax wala la France a gagné la France lii lii soo leen xamee ni ma leen jéppee ni ma leen bañee soof bu bëgg dee topp nañu rajo yi ak télé yi ñaari fan kenn nelawul ñu profité di yàqantaan sama bët moomoo ko may ñu tubaab yi ñàkk fayda yi bàyyi ni ñu ñuuli di leen yàqantaan pourquoi parce que France gagné nañu des désordres bu leen nangu bu leen nangu bu leen nangu lu weex ba tey dafay weex bokkul ak lu ñuul du musa ñuul est-ce que lu ñuul dina musa weex est lu weex dina musa ñuul ñoom fexe nañu lu nekk pour weex mais mënuñu weex xeesal nañu nabal nañu diwoo nañu ak ñi def nañu leeral ñetti fanu njambaan bésu tabaski lu ne weexal nañ ko mais munoo nekk tubaab mun nga weex ci yaram waaye nekk nit ko ñuul ci xel te loolu moo am seen xeesal yu forox yi ngeen di jël di ko njambaan boo leen yëkkatee seen loxo ci pétro yi muy forox toll bëgg a weex est-ce que mus nga gis tubaab bu bëgg a ñuul kon wax ngeen am jom nag yéen nit ñi ñuul yi ngeen téye seen bopp ci ñun billaay bu ma gañee France nekk fi président bu keroog gi waxuma la sax nit waaye lu couleur bu ñuul sax du fi yendoo boo leen xamee ni ma leen jéppee ni ma leen jéppee boo leen ko xamoon doo leen fi toog soof ba bëgg a Macron nag yow doo dara yow ku la bàyyi sax nga sëy ak ñoom ndax waaw parce que parce que lii du dem lii coupe du monde bii ngeen kenn newatul xam lu xew ci dëkk bi France a gagné France a gagné France boo xamee ni ma leen jéppee doo leen sax taxaw di supporter Mbappé ah. luy ndeyu Mbappé ah. fu mu Mbappé ak ku Mbappé Pogba luy sant yooyu sant yi ma xam mooy Derneville Lévi Marie Madeleine Barboline Étienne Justine Martini Marie-Madeleine Pierre Pierrot Alain Alexandre Christophe Daniel Janon Gilo waaye ay Demba Xuraja Mabige Ndey Xujja Ummi Ruqu